Nous nuyu sénégalais yépp di nuyu suñu mbokk wayanamaar yi di di wax ni l'entreprise de destruction de d'un mouvement aussi important que Yanamar dans ce pays a déjà échoué parce que li lée dañ ci out lenn te yenn question yu fi c'est woon moy nu def ba buñu mënul détruire mouvement bi par la voie judiciaire nañ ko détruire moralement ba ku taxawati ci mouvement bi ci télé di wax sénégalais ne cim waaye ça ne passe pas ça ne passera pas parce que it su doon sax li ñu tuumal ñaari membre ci Y'en a marre am na te ba fii ñu tol ni kenn fii mënul wax ni am na kenn mënu ko wax man ma gëm ni amul te dina wax lutax waye bu doon am sax lañuy def ñun en tant que individu suñuy mënu ñu ne loolu ndigal la bu ñu jël bu diyé ci yana mar ci groupe bi kon bugg kut ko kut def le link day dugg ci liñuy wax mauvaise foi ci tubab waye nak ci diiné sax dañ ñoo jangal ni sa mbokk dang koy taxaw bu tooñee ak buñ ko tooñee donte toñ na sax dang koy taxaw moy il fo nga apporter ko solidarité farata la ci yana mar mu apporter solidarité rawatina nak budé tay kenn mënul firnde ndéel ni li topé nit ñi lolu amna na yana mar taxaw sudé nak ñun ñi dul membre yana mar sax ñi ngi taxaw rawatina na yana mar c'est une obligation c'est un devoir kon amal ga bom bobu ñuy essayer dugal ci bop nit ñi ba suba alim Sané buñ ko invité ñu ne ah ñom de ni bu euh, euh, fu mala démé télé ñu ne ñoom de ni lolu ça ne passe pas mouvement dafa am ligne am ay principe yu tax muy xeex tant que ligne ligne boobu ak principe boobu mouvement bi dans sa globalité dévié wu ci la lu mun a kenn wala kenen ci mouvement bi mënuñu ko jël tek ko ci ndodd mouvement bi yépp jàpp ni tey la Y'en a marre war a gën a am doole ak taxawaay ci réew bi parce que nag lu yëngu rek lu ko yëngale ko ëpp doole bu demee ba sible Y'en a marre dafa fekk taxawaayam am na ñu mu gêné ci réew mi parce que ku soxalul kenn kenn du la pexeel ñaareel bi muy li may wax rek ci li tax ñu teew fii mois de février mars soriwul gën saa gudd juróomi weer la te bi coow li jibee bokk na ci njëkk a ñëw taxaw ñëw sama kër seet si ma yaana la te délégation boobu Simon ngi ci woon Fou Malade ngi ci woon Aliou Sané ngi ci woon Caata ngi ci woon euh, kilifa ngi ci woon ñu ñëw taxaw ne ma nag suñu yoon newul ci politique nous ne sommes pas des acteurs engagé wuñu ci cadre politique wala électoralement waaye suñuy principe ak lii suñu taxawaay mooy fépp fu ñu bëgg a faagagalee démocratie fépp fu ñu bëgg a jaaye nit doole Y'en a marre dina fa taxaw ñu ñëw taxaw taxawaay bu rafet lu jiitu loolu yàgg naa am ay contact ak Y'en a marre waaye du contact bu poussé parce que fii Sénégal it dafa am loo xam ne

ak yeneen yeneen yoo ne sénégalais bu ne mun bokk ak beneen sénégalais indépendamment de votre forme d'organisation waaye damay jël exemple ci kenn def seede fii muy caat wala muy kilifa gannaaw bi maar kilifa Dieu me témoigne. jusqu'au mois de février defe naa caat mi sax laa gënoon a miin ñuy wootante de temps en temps ana sama livre gi demee noonu mais bi événement yi amee gannaaw bi ñu dajeeg Y'en a le lendemain dafa ñëwaat sama kër ñëw toog ñu waxtaan lu yàgg mun naa ne depuis le 9 février jusqu'au 3 mars amul jour boo xam ne kilifa ñëwul sama kër musul tegle ñaari fan yu mu ñëwul sama kër ñew tok apporter mo son soutien waxtaan ak man Serigne Bassirou Gueye bi di procureur da ko woo ci bureau bi mu mu ne ko yéen li tax ngeen di jappalé Sonko que yeen ñepp di ngeen ci jëlé problème limay wax ni je tiens à le dire ici parce que nit ñi faut ñu xam link bi yeen ñepp di ngeen ci jëlé problème d'ailleurs Sonko va aller en prison il va pourrir en prison ne ko yor certificat médical kilifa ne ko ñun ñep yor nañu certificat médical mu ne ko bobu baxul mu ne ko bobu nek ci PV gendarmerie nga ne boobu baaxul yow am nga benen mu ne ko de toute façon il faut aller en prison kilifa ne ko bu yóbboo ngeen préparer ñu ay cellules ndax ñokoy jittu ci prison ci ko xam minante wu wuñu parce que li ngeen bugg def du deug jaay doole la lii kilifa dafa jóg jóge foofu ñëw sama kër ñu toog waxtaan ci waaye li gën a yéeme sëñ Bassirou Gueye daf ko ne dañu toog rek sama soxna andi reer bi ñu teg commencé reer ma présenté ko soxna si yooyu mu yëngal bopp ma ne ko lu xew mu ne ma sëñ Bassirou Gueye ngeen jéggal ma ci kàddu gi sëñ Bassirou Gueye moo mën a fen dëgg dëgg dëgg dëgg ma ne ko ah lu xew mu ne man daf ma ne Sonko sax d'ailleurs këram tas na jabar ji jël na bakaasam ñibbi na loolu ban rapport la am ak travail procureur c'est de la méchanceté gratuite et bête ça n'a rien à voir avec la justice c'est lolu moy justice Sénégal Si naa wax ni problème au Sénégal le koy tas dina jogé ci justice té ñent ci biir justice bi ab procureur la ab doyen des juges la un juge d'instruction conseil constitutionnel cour suprême nous sommes ñooñu les bras armés judiciaires et politiques de Macky Sall ñun ñëpp ñu koy seetaan est-ce que war nañoo lëmbee 17 millions de Sénégalais suñ nee lii ngeen war a attee nga teg ko fële ñu ne la fexeel ba tëj Aliou Sané nga ne tey su ma naroon dem créer sax ay charge dinaa ko créer mais kii il faut mu tëj di kaso avec une méchanceté que rien n'explique et j'interpelle la justice la justice parce que nous avons dit que nous avons ñu L'institution, attaqué institution institution bi sénégalais c'est le peuple sénégalais c'est pas les 300 magistrats ils doivent rendre justice au nom du peuple sénégalais non pas au nom de Macky Sall si dee nag am nous ci ñoom ñu baax te ñun xam nañ ni ñi baax moo ëpp waaye justice dul ci ils sont quelque part complices may la justice marche bien c'est pas parce qu'il y a quelques cas mais quelques cas yi dañ ko xef li tax yàlla wax ci alxuraan ne ku rey benn nit dafa mel ni rey nga àdduna yëpp koo tëj ci loo xam ne du yoon dafa mel ni tëj nga àdduna bi yëpp parce que la liberté est sacrée yàlla dafa mooñaale nit ak liberté muy dem di ñëw di régler ay problème nga jël nit ci lu dul yoon féetale caabi ci gannaaw ba pare dem lekk sa ceebu jën naan sa ataaya te toog di foog say doom moom dootul gis do ay doomam ba pare nga ne loolu dañ ko banaliser ces injustices là moo rew réew bu musa tas te dina tas Sénégal suñ ci djogul parce que ken du ko je réitère ce que j'ai toujours dit le droit à la résistance face à l'oppression su Macky Sall jàppee ni voter ay loi yu ñàkk fayda ci terroriste dem suréquipé ay gendarmerie moy problème na dem laaj wa Algérie dañ wax Soudan la un peuple qui ne qui dit non ken mënu ko téye ñun nak jàppoon nañ ni les événements de mars dina ko dello xelam touti mais il wane a entreprise systématique de ciblage et de liquidation de gens simplement parce qu'ils ont dit non ce dossier est vide L'État tax ñu une escroquerie qui a escroqué qui une affaire privée ni qui dépose une plainte a escroquerie corruption mais dem avez dit l'article 159 code pénal pour corruption il faut un agent public bo xamné dañ ko jox pour que en échange mu def wala mu baña def agent public bi après ils mettent leur leur leur connerie de x excuse-moi du terme comme dit Barthélémy Dias c'est du foutage de gueule tu prends tu mets x mais kan que nous corrompre dans cette affaire là parce qu'il faut coûte que coûte fabriquer des preuves pour que nous dem te kaso mais nous, ay borom kër lañu de yor dom yor jabar yoon ay ay activité yow mi leen tëj gënoo leen Macky Sall bi leen tëj gënu leen te tey su jugee palais dina dem toog ak njabootam et on nous dit laissez passer balaa may dee ñu ne Sénégal réewu jàmm réewu jàmm day fekk tous les acteurs dox jàmm te yow mi ñu jox nguur pour nga améliorer le sort des Sénégalais nga bañ ko utiliser pour dal ci kaw ñu ma daaneel nag ci wax ni nous serons à côté de Yanamar dafa am combat yoo xam ne bu jotee bu langu, nangu fumisterie yi c'est politique c'est pas man bi ma ci tolle ñi ñëw duñu politicien mais suñu taxawloon heure bi du ma toog De di wax dafa am fu mbir di toll man je ne suis pas là en tant que politique je suis là parce que mes frères kilifa Musma, woowee Sonko ñancoo Mewoy. may je suis là parce que dañoo jël justice instrumentalisée une fois de plus pour liquider des gens su ma leen xamuloon sax warna naa taxa waxuma la nak bu ñuma xam la et vous aurez tout notre soutien nous mènerons ce combat ensemble su laajee la rue dinañ dem dans la rue judiciairement ñu ci xex xeex boobu ba léegi loolu laa bëggoon daanelee di masawu yaadamaat di massaw famille kilifa ay waajuram ay mbokam soxnam ay domam ñëpp ñu ngeen di masawu ne leen nag ils nous auront ils nous auront tous à côté de nous kilifa eh, Simon ak barki dem rek ce combat on le portera ensemble Inshallah. parce que ce que Macky Sall veut faire de ce pays ça ne passera pas et je termine par lancer encore un appel à la jeunesse de ce pays c'est votre avenir qu'on veut compromettre parce que l'ILEP ça participe à un plan politique de confiscation du pouvoir par des gens incompétents qui n'ont réussi à rien faire de bon pendant dix ans et qui vont rester encore dix ans. Je vous remercie.